taala wa barakaatu barkib sëñ Fallou murid yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare tey nag ñëwaatal nañ leen comme ni ñu leen koy amalee saa su nekk si seen plateforme Jazboul Mouride tey ñu ñëw fii fi nga xamante ni mooy kër sëriñ Modou Aminta Fall indil leen nag spécial kumte ñëpp xam nañu tey jii sëñ Modou Aminta sëñ Fallou moo ko fi nekkal waaye ànd ak rakkam ja Cheikh Modou Moussa Fall ak njaboot sañ Modou Aminta ge murid yeeg ak donga yeeg taalibe yëpp tey nag dinañ ñëw yéen dugg ak yéen si waañ bi dugg yéen ci li nga xamante ni mooy lu jëm si matt mi dugg yéen si li nga xamante ni mooy sikkar waye dugg ak yeen ci li nga xamanteni moy mbollem lo xamanteni day taral li nga xamanteni moy kumte gi tay spécial kumte la and ak yeen biir ñaari Baye Fall topp dañ leen won lepp lu ci nek rek and ak yeen ba ndog yu juk ñu dem kër maam Cheikh ibrahim Fall jëm jóge fa jël auto yi and ak yeen ba dem fi nga xamanteni moy mooy ko Cheikh mohammed al muntaha na fi yag lool te wër kon mbokk yu ñun ak yeen ñu daldi di fi nga xamanteni moy biir ñaari Baye Fall sànq ñu ngi fii tey si waañ bi jàkkaarloo ki nga xamante ni soxna Diop Seck la mi nga xamante ne bokk na si jëwriñ ñi waaye ñi nga xamante ni dañuy saytu li nga xam mooy liggéey bi ñu koy laaj soxna Diop Seck ginnaaw bi nga nuyoo eh, ak ziar murid yi ana naka nga gisee liggéey bi tey. fii nag mooy waañu sëñ Fallou Modou Amine ak sëñ booloo baax ñaari cin yi nga xamante ne moom la sëñ Cheikh Fall jëm mu jox ay rakkam. Mhm. bu ñu fi mu jox ko ay doomam. Mhm. muy sëñ Fallou Modou Aminta muy sunu jëwriñ. Mhm. ak sëñ moom sëñ Mor Amin ak sëñ Fallou Seex mi rakkam moo tax ñu tudde cin bi booloo baax booloo la baax mhm. ñoom ñaar dañoo mus a tàggoo ci àdduna mhm. muy sëñ Mor Amin ak sëñ Seex Fall mhm. moo tax seen cin yi di benn waaw moo tax ñu lëkkale déggisement yi lëkkale xol yi daal di tudd nag booloo baax ana naka ngeen yi àndee liggéey bi ndax fii nekkut waa booloo baax rek nga fi nekk waaye gis nañ fi mbooleem kër baay faal yëpp am nañ fi waa ñoom it biir kër Mame Serap ngeen di àndee li nga xam mooy liggéey waaw jërëjëf sëñ bi loolu jar naa laaj. Mhm. xanaa xol yu ànd rek. Mhm. ndax ab liggéey. bu xol yi àndee rek mu ànd. Mhm. sëñ Fall dafay am ñaari cin moom rakkam sëñ Fallu seen. ñu wëlbati ko waat di yokk nag seen cin yi. yokk bi nag di doole seera Fall. tubaarkalla macha allah. dem ba xajatul ci booli yi. ñu yokk ci kër gi. ñu boole booli yooyee ak booli yi. bu yokkee ci kër mi ñun ñu ngi yokk fii ndax man mii soxna Diop Seck. juróom laay laaj. ku fi ne rek di wuyoo booloo baax da ngay joxe juróom ba ci yéen ñii sax bu ngeen ñëwoon tey jii dama leen di forcer maanaam naan leen jox leen ma juróom juróom yooyu nag jurna yu bare bare ndax juróom yooyu maa ko fi njëkk a def waaye ma ko defee soxna yaasi a ngi nii tax na waa wépp def juróom kon xol yi dama la benn juróom yooyu ci la ñuy waat sunuy xéewal ci la ñuy jënd li jigéen ñiy def. maanaam cohésion bi am. booloo gi am si waxuma waa booloo baax kese waaye mboolem kuy Baay Faal te dib soxna nekk fii si biir ni ngeen mën a àndee te ku nekk xam na ni nekkuñu soxna maanaam ñaari soxna yu nekk sax day jafe. ñaari góor yàlla sax day jafe rawatina ay soxna waaye dañoo gis fii yëpp ñëpp daanaka benn nga boo xoolee da ngay gis koo xamante ni zone noire la sol sol toog ko sol bu la baxa wala toog sol noir balaa yooyu maanaam booloo googu noonu laa bëgg nga ñëw si. mbooloo baax ñun dañu ko tudde rek waaye wàññil ko mbooloo baax sëñ Bass Alxuraan moo fi njëkk a yor déguisement jaune noir ñu naan ko sonn noir sonn noir maanaam mënuñoo lim lépp ndax wax wax wax gudd lay doon mhm. waaye ku fi ne ci kër gi rek mhm. daanaka yaag booloo baax yéen a yem mhm. kenn mosuñoo Ken xuloon kenn mosuñoo atte ken. kenn mosu fee lakk kenn kenn mosu songoo kenn borom yéen kumte ñaar téeméer la ñuy dagg mboolem ku ci waañ ñaar téeméer ñaar téeméer ba ñëpp nag loolu la boole boole ko fédération yi mboolem ku bokk biir kër sëñ Modou Aminta rek kaw kaat la ko def muy ñaari russi bii ma yor ko fii asu di ba bee soxna Ndey Saala muy jawri nii yor ko ca kër buñ boolee lépp dagg ba mat ñu boole lépp jébbal góor ñu boole lépp jébbal sëñ ñun suñu wàll ci cindi mooy ñaar téeméer yi ñuy dagg waxtu wu ne dañ koy dagg première comité deuxième troisième tërëm ñu ñu ñu wari ñu andi dafa añu waaw murid yi seetaan bëgg nañu ñu xam ñoom lan mooy kumte kumte nag mooy weer sëñ bi nee na bëggul ñetti kumte fanweeri fan mhm. boo ci génnee ñetti fukk mhm. day mel ni kon ma ngay bëgg jeex léegi mooy kumte bu njëkk gi mooy fukki fan yi ak benn ñaareelu kumte mooy ñaar fukki fan ak benn bu ko defee benn bis bu ci ne kumte lay doon kumte googu nag dafay mel ni luñ doon def benn dañ koy yokk fukk waaw luñ doon def benn rek dañ koy yokk fukk taarale ko jëf ji nga xamante ni naka jekk mooy cosaanu jëf ji moom mooy cosaanu jëf ji waaye ku ci ne da ngay jaajuwaat mel ni liñ la doon def lool da koy yokk ay yokk yokki yokk yokk mba mboolem loo xamante ni fruit la wala naanu wala lu mu mën a doon rek ñu waajala waale ko bis bii nga xamante ni mooy bisu kumte gi lu ci nit mën a am rek am na ñoo xam ne addiye la ñuy indi ñii dañuy bind ay kaamil ñii dañuy togg aw ñam ñii dañuy def lu leen def lépp loo xamante ni méngoo naag alali sëñ Tuubaa rek ñu jël ko dugal ko kon si yokk woogu nga wax ku nekk xam na ni sëñ Modou Aminta moo nekkoon xalifa général des Baye Fall mm-hmm. waaye bu mu fi jógee dafay bàyyi njabootam dëgg la si njiitalu sëñ Fallou Fall yàlla na fi yàgg loolu tàndagoo waaye Cheikh Moustapha jëwriñam mm-hmm, mm-hmm, ak njabootu sëñ Modou Aminta gi yëpp nan la ñuy taxawee jamono ji ci li nga xamante ni mooy ndogu Cheikh Fall yi waaw euh, loolu dina neex a leeral. Mhm. ndax kii fi nekkal Cheikh Ibrahima di Serigne Cheikh Fall jëmb. Mhm. wax naa la ko sànq ci biir wax ji. Mhm. sëñ Cheikh jëmb moo waxal boppam ca lamañu boppam ne saa yu ma wootee. bu fàllu ñëwee rek sama xel dal. te lii askanu kër Cheikh Ibrahima. li ëpp ci jaami yàlla yi nangul nañu sëñ Fallou Fall ni mooy jëwrinu kër Cheikh Ibrahima. jëwrin nag du caagi ni ko gudd mbaa ku rëy. mbaa ku diggu doomu. maanaam ñëpp dañuy maase nangul la. yow it liñ la jiñ ba jàpp ne yow loolu nga doo ci yëg sa bopp doo ko gis lu dul kilo ko ki nga xamante ne moo ngi koy defal mu jëmmi sëriñ bi njëriñu ndogu buñ ko waxaatee dañuy ñëwaat ba tey ci njariñu joxe ñam rek daam ko ma sa ñëw ci samam seer fa Lamp Baal Mourideen ne ko Fall man de damaa bëgg dab góor ñi waaye aw ma doole Cheikh bi ne ko ak a yomb doom bindal deel mu bindal deel mu ne ko bindal baa mu bindaat baa mu ne ko bindaatal deel mu bindaat deel mu ne ko bindaatal baa mu bindaat baa mu ne ko jàngal mu ne ko dabe ndab Cheikh Ibra day fekk loo xam ne sëriñ bi dala la wax ci arab mu jaaxal la mu wax la ko ci olof rek mu gaaw Cheikh Ibra ne dabe ndab kon njariñ li dëgg dëgg dëgg mooy li waral murit yi am na ci ñoo xam ne dañ leen a wan lii ban xam ko am ñoo xam ne dañ leen cee nàmpatal Cheikh Ibra dane lii ma leen di woo kun ci woo nga wuy si ñu digal la nga def ñu tere la nga bàyyi ñu liggéey loola nga liggéey ñu laaj la nga joxe tabbi nga ci mbax ta mbax bon nekkul ci wala kon loolu ku deg buñ la ci woy da nga ñew seet bi nag liggéey ci moom xool koy bëgg ko de liggéey bi ndax ci liggéey yi la bokk ba na it ba mel na na bëgg na lii da ciy aada rek. moo tax sëriñ bi nee na mën na ko def. jëriñ liggéey bii. jëriñ liggéey bii. ñu ngi ci jotaay bi. ñu ngi ci mbaar mi toog nag. di dégg nag kàddu yi sëriñ bi di wax. moom la ñuy defal. moom lañ doon defal. mooy waxaat ak yéen nit. mooy waxaat ak yéen nit bi. ba noppi nag tàggatu nañ moom. ndax boo ñëwee. ndax boo ñëwee. ba noppi ba noppi. ka waroon jëfal bu gisee jëf ji. ka la doon jëfal bu gisee jëf ji. te waxut ak yow. da nga doon xam jëf ji nan toll ak moom. waaye bu waxee nag. faaw nga xam jëf ji nan toll ak moom. waaye sëñ bi nee na yow de sa liggéey bii. nga xam ne suñu borom rek tax. ngeen àndal jëf ji. muy jëriñ ji. bi mu waxee yéen xam ngeen ni xolam sedd na guy ci biir liggéey am xelam it dal na ci yéen nag yaakaaram dal na ci yéen sëriñ bi nee na wax gi muy wax ci liggéey bi moom bu soobee bëgg sax bu ci tegee liggéey bi sa sëriñ bi la jëm sëriñ bi mooy suñu dencukaay mooy banque bi ñu ngi àdduna ñu nag na ko sëriñ bi daan waxee rek ku ci yor sa alal. ba jëma moom ca banque. ba jëma moom ca banque ba. boo sañoon. boo sañoon. takk leer bi lay wéttali. takk leer bi lay wéttali. doo ànd ak moom. ndax bañ ko xam dara. ndax bañ ko xam dara. ca la nga fa am ca la nga fa am. te sëñ bi sama banque. te sëñ bi mooy sama banque. moo tax léegi léegi rek. moo tax léegi léegi rek. ñaar ñoo ñu ci borom rek. ñaar ñoo ñu ci borom rajo yi. ak borom télé yi. ak borom télé yi. ma xamal leen. sëñ bi xamal leen. ñun liggéey bii liggéey. ñun liggéey bii ñu liggéey. àndoon na koo xam. da nga koo àndoon ak koo xam ni. suñu borom dana baaxee. suñu borom dana baaxee. ba mu laa biiral nit yi. ba mu laa biiral nit yi. ba mu laa biiral nit yi. ba mu laa biiral nit yi. lu lu mu ci wax rek. lu mu ci wax rek. wax na ko ba dégg. wax na ko ba dégg ba dégg ko. lu mu ci war a def tam. lu mu ci war a def tam. def na ko lay gis. def na ko nag muy gis. danaa wax ni. daf daan wax ni. jëf ga. jëf ga. boo ko jëfee ba noppi. boo ko jëfee ba noppi. gàddu soo laam topp. gàddu soo laam topp bëggoon ci jëfee. bëggoon nañ ci jëfee. boo jëfee da ngay ñëw soxla. boo jëfee da ngay ñëw soxla meñ. boo jëfee ba noppi. boo jëfee ba noppi. da ngay ñëw soxla meñ. da ngay ñëw soxla meñ. bàyyi na mu waxal. bàyyi na mu waxal la. waaye jëf ba noppi nag. waaye jëf ba noppi nag. jàll soxla meñ. jàll soxla meñ. na nga nawee ko jëf. mu ne nag nga nawee ko jëf ko. waxe ko ne. waxe ko ne. loolu mur yi. loolu sëñ bi nee na mur yi. sëñ bi nee na gënul ci kuy jëf. sëñ bi nee na gënul ci kuy jëf de. liggéey bi daal moom. liggéey bi daal moom. ñu gën a sutura. ñu gën a sutura. bu ñu xaw. loolu sëriñ bi nee na doy na sëkk. suñu borom képp. bu ñu woon jàmm. xol yi ma def ci yéen. ni mu leen jege. ni mu leen jege. moo nee laa leen jege. sëriñ bi nee na loolu doyoon na. waaye maa nga gën a jege sa xol nag. loolu sëriñ bi nee na mu ne nañ ko bàyyi xel bu baax. kon kii tax ñuy jëf. kon kii tax ñuy jëf nag. jëru seeral kenn. jëru seeral kenn. moo la gën a gis jëf ji. moo la gën a gis jëf ji. mën a seet. loolu ko mën a gis ku ko mën a seetal. kon doy nañ seet rek. kon sëriñ bi nee na kooku doy na seet rek ci moom. moo waral nag. moo waral nag. li nga gis daal mooy. la ko gis daal sëriñ bi nee na mooy. teggin yu mat sëkk. teggin yu mat sëkk. yar bu mat sëkk. yar bu mat sëkk. laab bu mat sëkk. laab bu mat sëkk nag. ci jëf ji. ci jëf ji. ak ñun ñu ko jëf. ak ñun ñu ko jëf nag. ñu gën a seet rek. sëriñ bi nee na ñu gën a seet rek. moom la gën a ci ñun nag. jëf moom ni ko sëriñ bi waxee rek ginnaaw dañoo koy delloo. ginnaaw dañ la koy delloo. noo bëgg mel. noo bëgg mu mel nii. boo ko gis. boo ko jëf. fexeel ba jëf ca moom la mel noonu rek. mooy tax boo dee jotaan rek. sa xol dina ko seetlu buy. sa xel it dina ko dal nag. kon sa nga bëggoon liggéey baal boobu. seen daan yooyu mi nga xam ni. ñii fi teew ci jotaay bi. ci góor ñi. yow tam yaa fi mag nag. waaw waaw sama saako daa ñëw léegi waaw. waaye ma gën waaw. sëñ bi day bëgg lim seen i tur ñoom. moo tax mu wax ak loolu rek. waaye sëñ bi nee na ñoom daal ku fi teew daal. lu mu métti métti nag. mooy dàq ci ñoom nag. xam nga li tax teewuñu. sëñ bi ne li tax teewuñu. mooy li waral borom liggéey bi teewul. mooy li waral borom liggéey bi teewul. doy loo ki mu def jëriñ. doy loo ki mu def jëriñ. moo waral. moo waral. ñëw xool la kii. ñëw na xool liggéey bi. dama xam ne bu ko xoolee. dama xam ne bu ko xoolee. lépp.